bu ñu xëyee am xew génn ndax ñu mën a libre libre ñun mënuñu woor mënoo woor mënuma woor kay. ñu demee salaamaaleykum. kii euh, Aram. Aram seen añ bi. na ngeen def. waaw ah, ça va bien. <laughs> booy. maa ngi rek ci jàmm. alhamdulilah alhamdulilah. macha allah tey kenn kenn aw maa ngi xëcc baax. waaw xëcc la waaw mën naa toog bi mën naa toog bi. waaw moom koor gee ko jàpp. wallaahi wallaahi ne ko koor gi. alhamdulilah maa ngi rek ci kawam. sant yàlla bu baax ah kooru tey gi moom dafa. Aram yow. doole ñëw jël seen caabi yéen tamit. ah waaw xale yi xale yi moom. xale yi yooyu heure heure midi. waaw xam nga la ñëw teg ko fii nii nee na xarit bu ko tegee fee. dem dañoo jël añ bi jox le ko. waaw ah? benn waay bu dëkk ci koñ bi xaw ma nu mu doomam ji fu xale la def. waaw yëpp. boole la boole déet déet déet déet ah boole bi. boole la ah boole kat daa mënta woon. boole la ah, kaare boole moo fi lekkoon boole moo fi lekkoon ngénte lu ñu fomm fii. waaw ah moom mu ñëwee fekk nit ñaañ añul daa bàyyi ba nooñ ba pare mu dajalee euh, desit yëpp lekk. door ko ah, waaw waaw waaw mu lekk ëpp la juróom-ñetti bool yi ba pare rek xëm daanu ñu naan sa waay dee na dee na gàddu ko yóbbu hôpital médecin bi bi mu ko xoolee dañu kii xiifa ko jàpp. Eh? moo boole mën na lekk gàmmu gàmmu bu fomm. boole mën na ko lekk arab yow te lu si bëri. ceeb bi bu ñu ko tegee fee si couloir bi. Ah. xar bi da koy këpp xam nga xar yi rek mooy loolu morom mu tegoon ko fii. Ah. aram. waaw waaw aram mi man. ñu ngi si biir sax. waaw waaw ñu ngi si biir waaw. xale yi ñu ngi si biir waaw ñu ngi si biir ñu ngi si biir sama affaire conférence bi si laa nekkoon conférence su quartier gi sax laay wax waaw uh-huh. xam nga yéen si quartier bi ngeen dëkk effectivement te wax dëgg yàlla man beddiwu ma leen benn yoon uh-huh. du ma leen mës a bedd waaw na xolo xet doguma la xet bi daf may déranger quoi waaw ah, waaw non daf may aram yow waaw kon ah, neel maa ngi jégalu weeru koor sax wax dëgg yàlla yooyu yëpp da si am solo uh-huh. waaye conférence gi euh, ginnaaw suba la xam ngeen waaw waaw conférence ah saa waay déglu koor gi ma ragal koor quoi kii. ndeysaan mais nag suñu borom tegul kenn lu mu mun. dëgg tegul kenn lu mu yow nag force su da ngaa war a woor. parce que mën nga ko. waaye nag métti na suñ ñëpp nag. dëgg la dëgg la démb damaa xëddul nag damaa xëddul démb. ah, ah karmat man mii def yi ma gis nii. juróom-ñett at a ngi nii dama koy woote du ma xëdd. ndox rek laay naan tëdd. turu yàlla daal laay dundee. conférence moom tëj conférence ginnaaw suba léegi damaa bëgg nag incha allah ñun dinañ ko waaj ñu ko war a waaje ñëw jàpp ci conférence parce que bu dul dara yow suñu papa la te bu baax nga waaj gën a defal nga nu lu ne ci àdduna waaj googu laa bëgg ah. damaa bëgg jeunes yi hmm. yéen si jeunes yi ngeen bokk hmm. organisation bi yëpp seen loxo laa ko tëjee ah, teg ko si ñu ko jar a teg nga ko ci loxo yu wóor waaw billaahi hmm. ak suuru ramadan gii koor gi lu si baax si conférence bi yéen incha allahu rabbi ak suuru ramadan bi lu si bon yéen la incha allah dara du ci bon dama bëgg ngeen teel a yeew mhm. baas baas mhm. ranger chaise mhm. waaw conférence moom ma ma ma fàtt naa laa laaj oustaz bi tey ci ba ban tem geen ko jox waaw kay xam nga ba damaa bëggoon nag sa bëxal ci sama thème ndax bëgg naa ñu wax ci gone yi nga xam ne nii ah ñu majeur nañ vacciné nañ toll ci mën a woor te duñu woor jërëjëf toll ci mën a woor jërëjëf bëre ñu naan ay damaa amee ulcère damaa amee jàmbataan damaa amee xuréet damaa amee biir buy daw damaa amee yax yu rang rangi damaa amee bakkan bu rëy damaa amee buy naaj yooyu dañ ko war a bax waaw kay te am solo la oustaz bi leeral loolu xam nga xam nga xam nga maanaam waaw nee ma massa ah, massa boo déggee man la massa da ngaa dëgg sama laamiñ ndeysaan da ngaa gaañ ci laamiñ maa ngi jéggalu wallaay maa ngi jéggalu bu ma sàkkam ren dem gi loolu la hmm. parce que koor dafa nekk loo xamante ni dafa garaaw hmm. te bàyyiwul si xel gis nga lii day woor koor koor koor koor koor waaye nag ñëpp dañoo jàpp ne ustaas koor koor xanaa xamoo sax ci suuf ci bu lewee biir suufu biir waaw ci bu lewee dama bëgg waaw dama ustaas bi bëggoon naa am amaat lu mu wax ndax am na gàmm koo euh, conférence boo xam ne day am fii fii rek soriwul. waaw waaye conférence bi li ma jaaxal conférence bi heure bu ñu ko organisé ñetti weer nga ciy teg gis xale yu jigéen mbuucaa mbuuc yu ndaw yi ci demoon yëpp ñoom ñëpp ni feeb boo tegee ñetti weer loolu loolu lu ko war. loolu tamit lu war la. Ah. léegi nag xam nga ñooñu demuñu conférence ba. ñooñu maanaam ndaje bi yàlla. waaw fa nga war a baaxee fa nga war a bone. Mm-hmm. boo demee ndaje bi yàlla. Mm-hmm. un mois. Mm-hmm. soppeeku woo. baal ndaje ga. waaw aram mi xanaa daf may xam ne dootoo soppeeku. weeru koor. Mm. dafa nekk li nga xamante ne dafa garaaw. gis nga man billaahi wallaahi taalaa gis nga bi doon ndox un litre yàlla xam na ne koor gi yëpp si laa jàpp. un litre su ma la wanee tey li ma war a jàpp li ma war a du ma la wanee tey li ma war a jàppoo gee am na ñoo xamante ni mun nañ koo lok teg ko nii sama loxo nii si laa jàpp man maanaam un bi man maanam ndox moo ma sonal man lekk sonalu ma turu yàlla laa dundee tàndar ma laay ndogoo parce que damaa ragal suñu borom hmm. dama ragal yàlla ittaqullah wallahi ittaqullah googu ngay dund yow. jeex na. Hmm. man noonu laay dund dama bëgg. yàllaa ko wax ci yàllaa ko wax ci alquran yàllaa ko wax ci alquran. Hmm. yàlla moo ni. an nasaafatu. minal imaani. wal masaafatu. minal imaani. an nasaafatu. wallahi minal imaani fonkal koor. wallahi ndax man yàlla li ma la defal ci koor. wallahi mu tegaat ci. ni kullu nafsin saa yi xatil mawti maanaam booy dox dogal ci mm. benn tàndarma rek yàlla suñu borom am na ah. lu mu la may kulli man ala yaa faani mm-hmm. boo yàlla ba pare mm-hmm. loolu ndogu la ndeysaan alhamdulilahi rabbil alamin rek <laughs> suur na jotaay bi nii rek tiyaaba la waaye am na ñoo xamante ni am na ñoo xamante ni maanaam dañuy ndog ba pare mm-hmm. bu ñu wóoree ñoom yàkkamtiwun lu dul ndogu jot ñu teg meew. Mm-hmm. tegub beurre. Mm-hmm. tegub ndambe. Mm-hmm. tegub mayonnaise. tegub ndox bu bëri. tegub tàndarma. Ah. tegub café tegub ndox bu tàng. Ah. bu mu paree def ci ceeb. Ah. bu mu paree tuxub cigarette. yëpp garaaw xanaa laajoo fa fa Fatmata xëri. ah barki Demba Ndiaye. doomu bàjjen kii doomu bàjjen jot ndogu jot mu foqale jël mayonnaise teg ndambe teg ruti teg soos soble teg soosu ñoom bi teg pombiteer teg ah soble sa ah ko ni ko ca pëy ah jël mburu ma saucisson fromage gruyère ñëpp ñuux ni ko tëy gëmut ah, yàlla ndogu ba pare biir bi yëngatu mu ne sarax ci duus bi def fa juróom-ñetti waxtu bi mu génne dane dara ci buntu duus bi dee wallaahi gëmul yàlla ñun ñëpp a tiit gëmul yàlla bi ñu duggee ci duus bi ubbi siège anglaise ba dagi butit yaag mbàq yaag yëpp la fa bàyyi ay baax ay yaa mm-hmm. ne dafa garaaw gis nga mm-hmm. maanaam ginnaaw mm-hmm. ngeen baal ma daa war a woor parce que xapp nekkul chaque instant dafa war a dem douche li tax loolu mooy loo lekkul mënoo koo wedd ci douche ba ma jox leen si benn anecdote rek gis naa koo xamante ni weeru koor yëpp da koy woor moom xam la lu dul woor bisu korite ak bisu tabaski billaahi wallaahi taalaahi dafa dem ba benn instant mënatul lekk faar yi def nii nga xam ni jii xiif na billaahi wallaahi taala mais biir buy daw bi kal ko mu toog nii si ñaxi naan nii di jonkar ñaxi naan dégg na lu naan mais xamul lan la. ndekete tuum ngeen lekk ñax yëpp ngeen baal ma si kàddu. Ah, <laughs> xam nga kooku bu dogoon kii. bàyyi leen xel si li ma leen wax lu si baax. yéen la lu si bon yéen la. kooku doo ci am dara loo naqari. effectivement ana xaaral ma dugg xooxal ñoom Ayda ak ñoom gan ñoom. Ayda ak ñoom ñëpp ñu fi nekk ah, ñu fi nekk borom téeméeri at yi. waaw léegi bu ngeen jugee. waaw man man dama am gàcce moom waaw. xaaral ma dem jë jë. waaw jël ko jël ko jël ko dee nekk mu lay téye boobu dina yàq dina yàq sa jot. waaw jërëjëf jërëjëf waaw yëkkalal leen ma ñëpp nag. incha allah yëkkalal leen ma ñëpp bis bi suñu bis la. waaw incha allah rabi incha allah jërëjëf. darkaal incha allah jërëjëf waay. jërëjëf nelaay. darkaal. boo ko trop te fàtte. ah bi ku soof la quoi booy bi moo fàtte ni saxub douche. booy kii di ah? mais par nga. ah mais dafa soof quoi. soof de ah mais yow ñëw lii rek ci koor moom moom moom oustaz bi. dem lii lañ ko waroon a jox mooy dugg kër jàmbur ah di wax tifli ñëpp tifli ñoo tifli ba ñu tooy xepp ak bëñam yu jànqar yi ah, kii paa yabaate la ah. kanam gi ceeb bépp seddal na ko. seddal na ba pare tifli ko ba mu tooy. dama ko mag alam bi am tablet dox. nga lekk ba suur naan ba mànde dem toog ci grand place bu doon jugee bu euh, euh, dox de. dox moo tax mu ngeer. riipañ daa xaabee mu bëri wax. sa waay del lekk xam nga boo feebaree da ngaa war a lekk wax naa la ko ba tey papa nga baal ma de émotion ga émotion conférence bi moo ko jàpp. bi nga nee ko ba tey yow lañ jox euh, euh, kii bi. kar jaaj bi yëngu. boobu doom del boobu mën nga koo lekk. Eh. papa li ma li ma rek ma àggaleeg moom xam naa li ma la wax. demal ah lii nga koy def da koy rey wóor na yàlla émotion bi la ko jàpp. lii nga koy def da koy rey. ah lii nga koy def da koy rey. da ngay forcer gis nga nit ci tawat père def nga ñu def nga ñu lu gi moo ko jàpp conférence bi nga nee ko ba tey yaar organisation bi amatul jàmm xam nga dafa amee ah. na waaw yàlla baax na yàlla yàlla leeral yëpp waaw ñaanal ko jàmm doom pataas a ngi nii lekk yàlla yàlla leeral yëpp lekk tane jàpp ci ci rek xuluñe bi jàpp ci rek xuluñe bi dimbali maa ngi jégalu de alma li ma la ci sas ci